الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد mbokki jullit yi góor ñi ak mbokki jullit yi jigéen ñi di way gëm yàlla maa ngi dénk sama bopp di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa ta'ala ak sonn farlu ci jëf yu baax yi ak di jëfe di waajal li ci ginnaaw dee te moo di faatu jaamu yàlla yi ñu xam ni texe mucc raw ñi am xel te xellu te gëm yàlla nangul ko loolu mooy seen jubluwaay bi gën a rëy mooy li nga xam ne rek suñ ko amee soxlaatuñ dara moo tax danañu fogu takku ba dëgër daa di fëx jëm ca la leen di may texe googu te borom bi subhaanahu wa taala mi ngi leen koy xeemam loo di leen soññ di leen ñaax ñu jëm ca suñ boroom subhaanahu wa taala ci suuratu soofaat ba mu waxee xéewal yu bari yu neex yooye ca biir aljanna yàlla na bum ñu ump waaye wax geneen kuréel ga ca kërug safaan ga yàlla nañu ump lum ca teg inna haada la huwa alfawzu alazim lii mooy texe gu rëy gi mooy texe gu màgg gi li misli haada fal yaamalil aamiluun kon képp kuy jëf na nga jëf lu mel nii képp kuy ut na nga ut lii tax nga am ak texe te mooy lalay lay may yërmaandey borom bi subhaanahu wa taala ak ngërmaandeem ñu xam ni texe nag mooy nit ki am nga ñaay làq aw yiw wu mat sëkk boo xam ne dafay ànd ak jàmm ju mat sëkk moo tax suñu boroom subhaanahu wa taala ni képp koo xam ne soril nañ ko safara dugal ko aljanna kooka mooy ki texe faqad faaz suñu boroom subhaanahu wa taala ba tey di ñu wax ni laa yastawi asxaabu nnaari wa asxaabu aljanna waa safara ak waa aljanna mënuñoo yam mukk te duñu yam mukk ni nga xamee ni fii ci àdduna dañoo wuute woon ciy jëf ñi gëm yàlla nangul yàlla jaar penku wala ñu jaar yoonu ndeyjoor ñi nga xam ni nanguluñ seen boroom dañ koo weddi jaar càmmooñ seeni jëf wuute seeni xalaat wuute kon it bu ëllëgee duñu ñu yam mukk waa aljanna dañuy jaar fii dugg aljanna waa safara jaar fa la dugg safara ni ñu wuutee woon ci àdduna noona la ñuy wuutee bu ëllëgee moo tax borom bi subhaanahu wa taala ni asxaabul jannati humul faa'izuun kon waa aljanna ñoom rek bu keroogee ñooy ñi texe ñooy ñi raw ñooy ñi mucc keneen ku dul ñoom doo ci bokk mbokk yi bokk na ci sabab yi nga xam ni day tax ñu am ak texe am ngërëmul borom bi subhaanahu wa bi ci njëkk mooy gëm yàlla gu set wicc goo xam ni lépp luy bokkaale ak bi daa daf koy sori ak jëf yi yu baax yu yiw yi nga xam ne suñ borom gëm gërëm na ko ab yonenteem gërëm na ko moo tax borom bi subhaanahu wa taala ni ñi nga xam ni gëm nañu yàlla di jëf-jëf yu baax ñooñu de seen boroom dana leen dugal ci biir yërmaandeem te ñoom rekk ñooy ñi texe texe gu leer naññ goo xam ni amul dara lu ko rax wala luñ ciy sikki sàkk ba tey boroom bi subhaanahu wa ni ñi nga xam ni gëm nañ seen boroom nangul ko di jëf-jëf ju baax ñoom de bu ëllëgee dana am ay aljanna yoo xam ni dana dox ca seen suufi kër yooya ca seen suufu pale yooya ay dex suñ bëggee xam dex yooya nañ dem ci suuratu muhammad suñ boroom di ñu fa wax dex yoo xam ni ay dexu lem la dexi soow dexi sàngara yooya ñooy dox di daw ci seen suufi kër yooya boroom bi nag ni bu loolu nag mooy alfawzul kabir mooy texe gu mag ga nag gu rëy ga ñaareel ba liy tax sabab yi maye ñu am ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala mooy as-sidq mooy dëggu dëggu ci say wax dëggu ci say jëf waaye dëggu ci sa yéene moo tax borom bi subhaanahu wa ni bu ëllëgee ña nga xam ni ñooy texe ñooy mucc ñooy raw la leen di jariñ bu ëllëgee mooy dëggu gi ñu dëggu woon fii tey bu ëllëgee dëggu googa moo leen di may aljanna yoo xam ni ay sewnde ay dex ñu ngay daw ci suufi seen kër yooya te dañ fay sax dàkk dootuñ fa génn ti mukk waaye la ca gën a neex radiyallahu anhum wa radu anhu yàlla suñ borom subhaanahu wa taala gërëm na leen ñoom it ñu daat koy gërëm suñ boroom ni loolu mooy texe gu màgg ga ñetteel bi lii sabab bi nga xam ni dana tax ñu am ak texe mooy alwilaayatu baynal mu'miniin ñi gëm yàlla nekk ay jullit gëm yàlla seen lépp benn la war a doon dañoo war a méngoo kenn ku nekk mel ni yaay sa moroom sa moroomum jullit bu amee mbégte nga bokk koog moom su amee naqar itam nga bokk kook moom loo ko mën a dimbalee loo ko mën a jàppale moo xam xalaat la moo xam man-man la euh, nang ko bëggee ku la ko defalee noon nga koy bëggale doo ko bëggal ab safaan doo ko yéene ab safaan seen lépp benn lay doon moo tax borom bi subhaanahu wa ni ñi gëm yàlla di góor di jigéen baax baaduhum u baax waaye bokk na ci seen jikko yi nga xam ni seen melokaan yay màndargaal loolu mooy dañuy digle lu baax di tere lu bon di taxawal julli ca nañ ko war a taxawalee di joxe asaka topp yàlla akub yonenteem te loola nag loo koy maye mooy jàng sa diine xam sa diine ndax kuy digle lu baax di tere lu bon day fekk nga xam ko borom bi ni ñooñu de bu ëllëgee danañ am yërmaande seen borom subhaanahu wa taala ndax borom bi mooy aziz mooy hakim waaye suñ borom subhaanahu wa taala ni digg na leen aljanna yoo xam ni dex yaa ngay daw ca suuf te dañ fay sax dàkk waaye itam am fa ay kër yu teey kër yu neex kër yu baax ca biir aljanna waaye li gën a rëy lool yépp te mooy wa ridwaanu min allahi akbaru mooy dañuy am ngërmaandey borom bi subhaanahu wa taala borom bi ni dalika huwa alfawzul azim loolu mooy texe gu màgg ga mooy texe gu rëy ga kon jullit ñi gëm yàlla dañoo war di bëggante di dimbalante ci lépp ñeenteel ba ci yi nga xam ni dana tax nga am ngërëmul borom bi subhaanahu wa taala mu jural la ak texe mooy xasiyatullaahi wa taqwaa ragal borom bi subhaanahu wa te mooy jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem borom bi subhaanahu wa taala ni képp koo xam ni topp nga yàlla akub yonenteem ragal ko jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereem nee na ñooñu dong de ñooy ñi texe ñooy ñi am ngërmandeem moo tax borom bi subhaanahu wa taala buñ demee ci suratu fatir euh, alxashya dafay wax ni innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama buñ demee ci suratul bayina mun radia allahu anhum wa radu anhu dalika liman xashiya rabba alxashya ragal yàlla gi ñuy tuddee xashya ak ragal la goo xam ni xam xam-xam daf koy lal xam sa borom subhaanahu wa taala bu ko defee noona nga ko xamee noona nga koy joxe gët daam ak dayoom noona nga koy màggalee kon fii suñ borom subhaanahu wa taala mi ngi tagg ñi nga xam ni ay boroom xam-xam lañ ci jaamam yi ñoom ñi nga xam ni ñooy jàngal jaam yi Eh, jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa di leen jàngal seen diine lañu war a jëfe ak lañ war a wattandiku juróomeel bi ci yi nga xam ni bokk na ci sabab yi maye ak texe mooy di jihaad ci sa alal waaye jihaad ci sa bakkan borom bi subhaanahu wa ni ñi nga xam ni dañoo dajale ak ngëm yàlla ak bépp barab boo xam ne ñu nga fa mënuñ faa jaamu seen boroom subhaanahu wa taala mënuñ ko faa wéetal ñu gàddaay foofa waaye di jihaad ci yoonam bi ci seen alal ak ci seen bakkan nee na ñooñu azamu darajatan darajatan inda allah kenn mënta am daraja maqaama bu toll ni bi ñu am fa seen boroom lu dul ku am melokaan yooyu ñu am boroom bi ni wa ulaika humul faizun ñoom dong dong dong ñooy ñi texe juróom-benneel ba bi mooy a ala al idaai wal istihza xam ngeen ni àdduna moom kërug jafe-jafe rek la te aljanna ku muñul doo fa mën a dugg ndax pour nga dugg fa fokk nga bëreek sa bakkan te mooy bànneex yi fokk nga bëreeg seytaane mën a jaamu sa boroom def ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye itam ñi nga xam ne ñi ngi ca ganeen wàll ga fokk ñu di la ñaawal di la saboote ciy wax ciy jëf bal sax buñ la mënee lor wala ñu faagaagal la dañ koy def waaye loolu yépp nga muñ ko bu ëllëgee nga daal di texe ndax wala fi dan ni ku muñ muuñ moo tax borom bi subhaanahu wa taala ni am na ak kuréel ci jaamam yi ñoo xam ni de dañ koo gëm waaye yaakaar njéggalam ak yërmandeem di ko ñaan guddi ak bëccëg ndax moom donkat mooy xayru rahimin ñi nga xam ni nag dañoo nekk ci geneen wàll gi niñ ko waxee woon sànq fa taxasumuhum sixriyan ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla gëmub yonenteem nangul ko ñi gëmul yàlla yéefar yi naafiq yi fu ñu toll ñi ngi leen di ñaawal ñi ngi leen di mokke ñi ngi leen di reetaan ñi ngi leen di yëj loolu mooy seen nekk seen programme ba ñu fàttee jaamu seen boroom fàttee wéetal seen boroom fàttee tudd seen boroom di leen reetaan rekk ak saboote lool rek waaye borom bi subhaanahu wa lum ci teg inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faaizuun tey jii de danaa leen fay ba ngeen kontaan dootu leen amati lu leen naqari dootu leen amati benn jafe-jafe dugal leen ca biir aljanna ya gën a kawe te loolu lu leen ko may mooy góorgóorlu gi ngeen doon góorgóorlu fii ci àdduna di muñ lor yi di muñ jafe-jafe yi kon nag tey li ngeen am kenn du ko am yéen dong koy am te yéen dong yéenay ñi mucc yéen dong yéenay ñi texe juróom-ñaareel ba ci sabab yi nga xam ni day tax jaam bi texe mooy alwafaau bil bay ma allah kóllëre gi nga kóllëranteeg sa boroom subhaanahu wa taala nga matal ko sëkk moo tax boroom bi subhaanahu wa taala di ñu wax ni ñi nga xam ni dañoo gëm yàlla de jënd na ci ñoom seen bakkan jënd na ci ñoom seen alal lum ko jënde lum leen di faye mooy aljanna kon boroom bi rekk mooy ki am njëkk jaamam yooyu nga xam ni dañuy jihaat ci yoonam di ci sonn guddeeg bëccëg borom bi jënd googu mu jënd seen alal ak seen bakkan dig boo xam ni ab digam du du du du du naax saay ab digam du wuute te dig boobu de mu dig jaamam yooyu wax na ko ci tawra wax na ko ci injiil wax na ko ci alquran ma mbokk yi ndax mus ngeen a xam wala mus ngeen a gis wala mus ngeen a dégg ku gën a matal kóllëre suñu borom subhaanahu wa taala abadan kon nag kontaan leen bég leen ci jaayante gi ngeen jaayanteeg seen borom subhaanahu wa taala te loolu nag mooy texe gu màgg gi mooy texe gu rëy gi juróom-ñeenteel bi juróom-ñetteel bi ci sabab yi nga xam ni day tax jaam bi am ak texe mooy topp yàlla ak akub yonenteem ak di wax wax ju yiw wax ju jub wax ju sell moo tax borom bi subhaanahu wa taala ni ñi nga xam ni gëm nañ yàlla ak akub yonenteem ragal ko di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem wa quulu qawlan sadida ñuy wax wax ju jub wax ju baax wax ju sell ñoom de du ñu xastaate du ñu saboote du ñu yéej seen mbokkum jullit duñ ko xeep moo xam ciy wax la wala ciy jëf nee na dana defar seeni mbir fii ci àdduna jéggal leen seeni bàkkaar yërëm leen daal képp koo xam ni topp nga yàlla akub yonanteem yow yaay ki texe nag texe gu màgg ga faqad faaza fawzan azima jaamu yàlla yi ñu xam ni texe làq ngërmaandey borom bi subhaanahu wa taala ak yërmaandeem ak mucc ci safara dugg aljanna mooy jubluwaay bi gën a bi gën a màgg ñeel ñi nga xam ni dañoo gëm yàlla moo tax borom bi subhaanahu wa taala waxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko qul bi wa bi fa bi dalika falyafrahu huwa xayrun mimma yajmaun yërmaandey borom bi subhaanahu wa taala ak i ngëneelam kuy bég kuy kontaan ci lool rek nga war a bég ci lool rek nga war a kontaan te mbooleem lu ñuy dajale lu ñuy sàkku fii ci àdduna lii mooy li nga xam ni moo ko ëpp solo mooy li nga xam ni moo ko gën ndax àdduna lu ñu fi mën a am mu bari mu néew mu yàgg mu gaaw dañ ko fiy bàyyi kër la goo xam ni dañ fiy romb rek jàll jële ci sahl ibni saadin radiallahu anhu mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na faandu te mooy e, takku nekk ci yoonu yàlla frontière yi nga xam ni dafa dox ci diggante jullit ñi ak ñi nga xam ne duñuy jullit yéefar yi man faa jaare ñëw songu jullit ñi wala bépp barab boo xam ne rek nekk nga fa nga taxaw taxawaay boo xam ni day tax sa moroomu jullit am sécurité am sécurité ci wàll yépp moo xam ci wax la wala lu mën a doon lang ca man nga taxaw ca te loolu yépp nekk fi sabilillah nee na loolu de moo gën àdduna ak li ci biiram mbokk yi mu teg ca ni mawdiu sawti ahadikum minal al janna xayrun min addunia wa ma alayha mbokk yi aljanna nga am fa lu tolloog as yar ab yar bant bu ndaw palaas bu tuuti ca biir aljana nga am ko fa moo gën àdduna ak li ci biiram yàlla na bu ñuy àjjana ump mu ni ngont loo ci yoonu yàlla wala xëy boo xëy ci yoonu yàlla moo gën àdduna ak li ci biiram xadiis boobu al imaamul buxaari moo ko nettali kon li nga ciy jànge mooy jullit bi ay waxtoom waru koo sànk ci ay caaxaan ay waxam ay jëfam ay xalaatam lépp bu xëyee su gontee suy nelaw lépp dafa war a nekk jaamu yàlla dafa war a nekk li koy jural ngërmaandey borom bi subhaanahu wa taala ba tey ci beneen xadis boo xam ne abdullah ibn amr moo koy nettali jële ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xadis boobu am na leneen lu ko jiitu mu ni képp koo xam ni bëgg nga képp ku sopp ñu soril ko safara dugal ko aljanna ngalawaay na góor góorlu fexe ba bis buy faatu bis buy dee fekk mi ngi dee ci ak ngëm yàlla yàlla nañ ko yàlla defal muy tolloog aaya ba suñ boroom subhaanahu tamutunna illaa wa antum muslimun moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bokkoon na ci ñaanam yi mu gën a fonk lu bari ci lu mu daan wax ci ñaanam yi yaa muqallibal qulubi sabbit qalbi ala diinik kon del góor góorlu tegu ci sa yoonu boroom waaye nag xamal ni laa xaw la walaa quwata illa billah foo tollu del ñaan sa boroom dundal la ci lislaam faat la ci ngëm yàlla ndax kenn xamut kañ la kenn xamut naka la kenn xamut fan la mu ni bu ko ab diggam di dikkal te mooy buy faatu na fekk mu gëm yàlla gëm bis pénc muy benn ñaareel ba mu ni lépp loo xam ni danga bëgg ñu defal la ko na ko defal sa mbokkum jullit lépp loo xam ni bëggoo ñu def la ko bëggoo ñu wax la ko bul ko def sa mbokkum jullit bul ko wax sa mbokkum jullit muy ñaari ñaari jumla ñaari ibaara ñaari faraas yu gàtt waaye tënk lépp bu bu njëkk bi te mooy buy faatu na fekk mu gëm yàlla gëm bis loolu àq la joo xam ne danga nga koo war a bàyyi xel sàmmante ko muy sa digganteek sa boroom bi ci des te mooy wal yati ila nnaasi alladi yuxibu an yutaa ilayhi mooy almuxaafasatu ala xuquqi al ibaad àq yi dox sa digganteek sa moroomi jaamu yàlla yi xaq yooyu dee ko bàyyi xel di ko matal lépp loo xam ne loraanga la guy lor sa mbokkum jullit nga sori ko waaye lépp loo xam ni dana tax sa mbokkum jullit nekk ci jàmm dana tax sa mbokkum jullit bég loola bul ca xeeb dara sa kemtulaay kàttan hada wa sallu wa sallimu ala man amarakum allahu bisolaati alayhi fi muhkami tanzil fa qaala jalla wa inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala annabi ya ayuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima wa qala sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salatan waxida salla allahu alayhi biha ashra allahuma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid allahuma atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasana wa qina azaba annar allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min aw qawlin aw amal allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin aw amal wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amal allahuma taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim حي على الفلاح